yaay rasulullahi dem nga fa makka fam nga ni am nga nga ni li yàlla fam nga nga ni li bamba hamdulaay sariyatu aqiqatul iman alaaji fallu auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala muhammadin bisi fasaxati lisaani xabli fasaxatan wa nawirana xaqli wa bi mutaharil janaani lisraxi sadri wa anni kulla durrin saxsihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen siyaara siyaara bu nu tibbee ci sunu xol te di leen ñaanal ñaan gu ànd ak yaakaar nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaan gi nu di ci jiital saaxibul fadila sëriñ Touba Cheikh Sidil Muxtaar di ko ñaanal sunu boroom gën ko fee yàggal te defal ko wér gu ànd ak wérle di nuyu di siyaar njabootug sëriñ Touba gépp di feddali sunu njébbal ci ñoom te yeesalaat di yeesalaat sunu njëbbal ci ñoom tey feddali sunu kóllëre di nuyu di siyaar di ñaanal alxaaji abu baraka mbakke xalifa cheikh mamadul fadal ak mboolem njabootug sëriñ falilu mbakke di am mbégte teewaat fii tey ci kër goo xam ne genn la ci këri sëriñ falilu mbakke yi yàlla boole leen ci jox leen ci ab cër sëriñ aboo sant jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndal ci kër fali lu Mbacké cër boobu ñu di ko dundal di ko yokk di ko yaatal ba mu jur jataay bii tey muy këriñ soxna Abibatu Mbacké moom sëriñ Serigne lu Mbacké nu fekk fi doomam ju tedd ji bokk ci sëtti fali lu Mbacké yi di Serigne Cheikh Abi Mbacké Cheikh Ahmadou Bamba moom Serigne Abdou Mbar moom Serigne Balla Coro nu am mbégte lool ci jataay bi di ci sant sunu boroom mi nga xam ne ñaanal nanu ko daaw bi nu fi teewee mu mayaat nu nu teewaat fi ren noon ko ci sant bu baax di ko ñaan di fi teew ay déwén di ko ànd ak moom muy koo xam ne yàgg nañu koy wax fii ci jataay bi jëmmale joo xam ne bokk na ci ñi sagal yoon wi bokk na ci ñi nga xam ne xam nañu seen bopp bokk na ci ñi nga xam ne dañuy sàmm seen dono fu ñu toll te yar ci ak njabootam ñu di ko ñaanal di sàkko ci ñuy déglu suñu kàddu ñëpp ñu maase ñaanal ko sunu boroom gën ko fee yàggal te defal ko ak wér te kàttanal ko ba mu àggale yéeneem ci liggéeyal maamam Cheikh Amadou Fadal bés bii ni ma ko waxee ab cër la boo xam ne njabootug sëriñ Fallilou Mbacké at mu jot cër yi ñuy sédd bokk yi bu ñu sañoon dañu koy tàmbalee fii ci kër soxna Abi Mbacké moom sëriñ Fallilou ndax Serigne soxna moom Serigne Fallilou bés màggalu Kazu Rajab da cee am ab cër ndax Serigne Fallou ko joxoon ndigal mu di ko def te yàgg ànd ak Serigne Fallou lu bés bi itam ndax ñëpp miin nañu bés bi saa yu ñëwee danañuy fàttaliku dem gi Serigne Fallou daan dem Daaru Salaam jamono joojee muy dem Daaru Salaam lam fa daan xewloo soxna Abibatu mii moom la ko daan sant mu di ko defar di ko fekk foofee ba yàlla dogal mu jox ko ndigal muy def màggal gi nga xam ne daf daan yenn dañu daan yendoo jàng alxuraan waa jumaa ji ak Baye Saliou Thiam fii lañ daan yendu ba takkusaan ñu door a ñaan cër boobee nag te itam ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ Falilou loolee amee woon ci seen kanam Serigne Cheikh Abi mii nga xam ne moom itam moo fi nekk di soxna Abi tey ñu bëgg a dundal bés bi ci ci moom nañ ko daan defee loolu moo waral jataay bii noo ci sant sunu borom bu baax muy ay jataay yoo xam ne bu ko doon seet jataay yu bari lay doon ndax Serigne Abdou Mbar mi nga xam ne mooy way juróom ku ne xam ne digganteem ak sëriñ Serigne Fallilou Mbacké liggéeyi Serigne Fallou yëpp ñi nga xam ne fekke woon nañu jamonoy Serigne Fallilou daa nañu xàmme bu baax Serigne Abdou Mbar ci ginnaaw sëriñ Fallilou Mbacké te loolu yaakaar naa ne bu ñu tàbbee ci biir waxtaan wi dana am yu ci feeñ yu baree baree bari kon nag noo ngi santaat sunu boroom fas yéenee tàmbaliwaat waxtaan wi ànd ko ak yéen ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéenee doxalee bu baax bokk yi nga xam ne ñoo fi teew ànd ko ak Serigne Ahmadul Badawi nga xam ne mooy ndawal Serigne Abo ci màggal gi ñu jël euh, wàllu culture bi ak digganteem ak presse bi yëpp teg ko ci loxoom muy wàllu communication màggal gi moom itam mu topp joxoñu sëriñ Abo boobu ba cër yi yëpp moo ko séddalee nii mu ko séddalee noo loon ci sant sun boroom bu baax di ko ñaanal yàlla àgg àggaleel ko yéeneem fa tabaarakallaahu euh, Serigne Falilou nag waxtaane ko defe naa ne jamono laaj na ko dama waxoon ne bu Cheikh Bamba doonoon guy sëriñ Fallou mii di wuy te wuy rekk a fii jur guy ku xam lii du réerati garab goo fi gis tey nag njariñ laa nga cay xobam mbaa ca xas ma mbaay reenam te day dal di jar wuti te guy lépp a may xëy dox ci réew mi ñu soxla ko li lay tax Serigne Touba dara mën la tuutati bu sëriñ Touba dee guy sëriñ Fallou di wuy wolof ne wuy balaa am njariñ toj waxtaane Serigne Fallou du mën a ñàkk loolu moo waral jataay bi noo ngi ciy sant sunu boroom bu baax di jox kàddu gi sëriñ Cheikh Abi Mbàkke moom sëñ Abdoulahi Mbar moom soxna Abi Bëtu mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Fàllu ji nga xam ne moom la yàlla séddewoon kër gi njabootu sëriñ Fàllu tam sedd ko cër bii ci màggal gi nu ànd déglu sëriñ Cheikh Abi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi min shaytaan rajim ñu ngi nuyu ñépp di sant bu baax ci teewaay bi di ko tàmbalee ci ñooñu nga lim rek ci ki nga xam ne mooy jiite yoon bi te woote màggal gi ren wooteen woo xam ne ñëpp dégg nañ ko ci turu ki fi nekkal cheikh Mouhamadul Fadal cheikh Abul Baraka suñ Ahmadu mii nga xam ne moo leen fi teewal ñoom ñëpp wax ji nag mën naa bañ a gudd ndax sëriñ Fàllilu yomb naa wax waaye jafe naa wax lool ndax lépp looy wax ci moom rek mooy li li liñ waxoon ci ne kaana xuluxuhul xuraan nee na léppam mooy alxuraan léppam mooy cheikhul xadim ci moom loolu la jublu woon sax ndax danaa bañ ku wax ne Sëñ Tuubaa fee ne Sëñ Fàllu fi nee ne boo tuddee Sëñ Tuubaa rek mu ngi ci biiram boo tuddee suñ Fàllu suñ Tuubaa nga ci hmm. li li nga xam ne moo am solo nag ci ci ci taalibe yi mooy jéem a roy ci ay jikkoom ak ay melokaanam ndax bu fekkee lépp lépp ni ñuy royee doomu aadama ci xam-xam ci jikko ci yar ci ci ak melokaan yëpp ak tarbiya ak taalibe te loolu moo ëpp solo ci yoonu murit te loolu moom royukaay la ci boo xam ni yaakaar naa ne bëriwul ay moroom ca loola ba Sëriñ Tuubaa seereel ko ko ni mu bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp seereel ko kenn ku ne xam na ak bëggam Sëriñ Tuubaa ndax wax na ko fu ne bind na ko jërul ma di ci dellu suñu amar wax na ko léegi ba tax roy ji ndax moom laa wax daaw ni ni suñ Fallu léppam xar baax la léppam baatin la waaye baatin kenn du ko roy ak jagle mawhiba la boo xam ne suñ boroom moo koy jagleel ku ko soob moom nag suñ boroom da ko soob mu jagleel ko ko kon nag nun ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem liñ war a roy rek mooy jikko yi mu nekkoon moom ci diggam ak boromam ci diggam ak Serigne Touba ci boppam ndax moom gisutoon keneen ku dul Serigne Touba ak taalibe itam nee na Cheikh rek la ci la ci la ciy xam ne daanaka ñoo bokk aw doxalin sax ci fànn googa ci ca loola nag ci la tàggane woon ay jabootam yëpp tàggat ci taalibe yi Serigne Touba yëpp nga xam ne moom mission li ci ëpp solo mooy tàggat taalibe yi teg leen ci. li Sëñ Tuubaa bëgg jàngal leen lépp lu diine santaane ak lépp lu ak taalibe woote mooy sare ak ak xaqiix ndax noonu la tërale jumaa ji sax bi mu noppee bi mu tuddee làmp faal sorot bi dana jumaa ji mooy sare làmp làmp goog mooy xaqiix xam ne lépp dugg na <laughs> te xaqiixa mooy ak taalibe mooy tasawuf xam ne mooy li li nga xam ne ci la nit di mën a jaare ba àgg ci boromam ndax ku ne xam na ne doomu aadama bi suñ borom bindee da ko bind ci ñett étape mooy étape bu nit njaay ak jikkoy mala ak lu ëpp nit mooy roxaaniye xam ne loola illal lasina na wa amilu saalihaat hmm. léegi nag ci loola la nekkoon di ci yar nit ñi moom xam ne maanaam sellal xol yi yar bakkan yi yar ruu yi comme noonu ma ko daa waxee ba ñëpp di gis ci ceew ñi ñi ci ëpp àgg ci yàlla te boo leen gisee sax da ngay defee ni maanaam ci saayir si mën nga leen a xeeb te kenn ku ne rek àggam ci yàlla maanaam sikkuut bi ci des itam mooy diggam ak njabooti Cheikh Ahmadul Xadim yi kenn ku ne relation ndax boo dikkee ci këram kenn ku ne rek aw turandoom a ngi fi bu dikkee itam da leen di def ni mu def si Sëriñ Tuubaa ndax man mii rek fàttaliku naa fii ci kër gi booba jamono yi ñuy liggéey jumaa ji ñoom ñëpp dañ fi daay yandu si bisu alxamis nga xam ne rawatina nag suñ Abdul Xaadir moom daanaka saa bu nekkee Tuubaa rek këram lay yandu moom bu defee waaye bu ñu yandoo suñ Tuubaa la ñuy waxtaane ba añ bi bi julli takkusaan nan ataaye ñu door a yewi ko dem ñoom ñëpp tënkuwoon ci nga xam ne bi jumaa ji àggee nag lañ ko door a soppi ku mel ni Cheikh Abdou Khadre rek yo di fi yendu si àjjuma waaye ñoom boobu alxemes lañ fi daay yendu si am ñu ko ci saxalal ay reer a nga xam ne si Abdou Lahad mii ca la ñoom dañuy yenu ay booli di ko togg di indi di ko yët di ko njukkal ca loola xam ne day sant Sëñ Tuubaa rek ñu di ko ci santle bu baax a baax hmm. te loolu lépp fonk Sëñ Tuubaa rek ak di ko santle ci mm, noonu mu sàkku diggam ak bokki jullit yi itam muy këri diine yi ni ko lislaam san sàkkoo suñ tuuba euh, santaanee ko it ca noonu rek la nekkoon xam ne ubbi na fépp ba am na ci leetar yoo xam ne xam naa danañ ko génne sax yim doon bindante kilifay diine yooyu diggam waa àddina itam ubbi ko woon na ba ca digganteem ak Senghor digganteem ak général de Gaulle ku ne xam na ko xam ne bi mu dikkee ndakaaru rek dane du waxti Cheikh Ahmad Fadal ñëwut bi mu dikkee it ni waxal bu fekkee mën ngaa garanti Sénégal rek ma jox leen ko ñu ngi nii taxaw mu ne ko jox leen ndax yow yaa dëkk ci tugal te ñoom ñoo nekk fii ñoo la fi nekkal te boo leen ko joxee mën nañ ko yor xam ne loola moo waral indépendance bi fi ni xam ne loxoom ci lépp la nekk kon muy saahir ak baatin ba tax na daal roy gi rekk moo am solo moom roy ci roy ko ci taalibe te xam ne maanaa noonee mu defoon suñ Tuubaa ñëpp noonu lañu war a koo def ko ko moom sax wax na ko ndax nee na cofeel gii ko nit ñi sopp lépp sopp gi mu soppoon suñ Tuubaa képp ko def nee na loolu la ko suñ Tuubaa faye faye ko xoli doomu aadama yëpp. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi damay dellusiwaat euh, nu santaat bu baax kon ci ni nga xam ne ni nga ubbee jataay bi muy ubbi woon wu am solo woo xam ne itam yaatal na lu bari donte tënk nga itam. ndax leeral nga nu li nu war a jële ci waxtaane sëriñ Falilu te mooy roy ko leeral nga nu itam diggante sëriñ Falilu ak taalibe yi pas-pas bi nga xam ne moom la aman ci taalibe yi ak yoon wi nga xam ne ci la bëgg ñu jaar ci mu daan mu daan leen ci teg bi ci des nga leeral nu bu baax euh, diggante mag njabootu sëriñ Touba gi ni mu leen fonke woon nga xam ne da leen a jàppe woon sëriñ Touba rek sëriñ Touba la doon xool ci ñoom ñoom it ñu jàppee ko sëñ Tuubaa ñu ñu dundal loola. leeral nga nu it digganteem ak ñi mu lislaam nga xam ne moom itam dafa tàllaloon loxoom mu jëm ci ñëpp ëmbal ñëpp jàmm ba ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ak xërëm gu réy nga xam ne amoon na ko ci doomu aadama ak yërmandi ji ba tax na sax di ko président général de Gaulle laajee ne ko boo mënee garanté réew mi ma teg ko ci seen loxo xam waxam ju joo ju nga xam ne day am day làmb baatin mu ne ko jox leen ko ndax yow day yóbbu ko dara te ñoo la fi nekkal loolu kon day wane ne kon moom ba tey rek. moo tax nag waaw moo tax nag dañuy dellu si ak kàddu gi ndax roy nga wax ne moom lan moom moom lan ko war a roy euh, day day laaj nag nu xam ni nu koy roye ak moom itam nag euh, liggéey bi mu doon liggéeyal Serigne tubaa nan lan ko ci mën a royee ak moom ci ban ci ci wan jëfin la doon liggéeyal Serigne bi. waaw loolu mooy li Sëñ Tuubaa tënk ci ak bi rek mooy bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati moom nag nee na ginnaaw sant gi ko Sëñ Tuubaa digaloon xidma bi la gën a ak sopp gi nga xam ne moom la sopp Sëñ Tuubaa xidma ba moom nee na ca la dem ba jeex ci tàkk ndax daf ne yonent bi bi mu fi nekkee sallallahu alayhi wa moom deret la laajoon dañ ne woon dem leen xare ji bu ngeen jihaatee inna laa astara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mu ne waaye Sëñ Tuubaa aw ñàq dong la leen laaj waay na ngeen ko nangoo jox te joxe ko ba mu jeex tàkk ndax mooy bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati xam ne bi muy tabax jumaa ji la ko leeral ne ne nekat léegi kuñ ci raw nga raw ba faaw ku ci rawit raw ba faaw ndax suñ tubaa daf ko ne woon boo demee li nga doon ñaan ci liggéeyal ma liggéey baa nga noonu ku d na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi ndax kat bu ngeen ko defut mooy nettali ko ne ko banaaliyel baax yi binaa an baaxiya bi xëyri hëdd min lil jinaani raaxiya nee na jumaa ji bu yowmal xiyaamatee dañ koy teg ci péncum àjjana ma te dana tabaxal naa la euh, néeg boo xam ni loolu suñ mu musaaka di wax kenn du ko màbbu kenn maanaam kenn du ko buddi yi nërmal loolu la ci jublu mooy banaaliyel baax yi binaa an baaxiya bi xëyri hëdd min lil jinaani raaxiya xam ne moom jumaa ji suñ tubaa ñaan na ko ba boromam may ko ne ko bu yowmal xiyaamate pénc ma ci àjjana dañu naa sojjet jumaa ji rek tegal ko foofu moo tax muy ñaan waccal buyooti rabbi ma masaajidi saadatan liraakihi wa saajidi mu ne nag léegi loolu mooy xidma ginnaaw yonent bi dafa laajoon deret nag suñ tubaa moom aw ñaq la laaj taalibe bi bu jumaa ji àggee it yeneen liggéey a ngi na ñëpp futtiku liggéeyal ñin yaakaar ndax loolu rek moo fi nekk suñ tubaa fi nekk taalibe fi nekk liggéey rek fi nekk itam te liggéey bi du àgg mukk ci àddina ndax suñ tubaa ne mu wootee lislaam yeesale ko ni dafa war a doon projet boo xam ni day continuer ba faw mooy noonu mu ko ñaanee ci Matlabul Fawzayni te loolu yaakaar na suñu Ahmadu ñoom ñi ñu ngi ci bu baax a baax kon nag nañ ñaan mu àgg ak jàmm rek te góor góorgóorlu ci ba lépp lu ñu woote buleen leen ci kenn man salaamaaleykum. bëgg nañoo bëgg nañoo xam Serigne Falilou Mbacké bëgg na bëgg nañoo xam Serigne Fallou bi nga xamee ne yàlla dogal na mu wóotu magam ju baax ja Cheikh Moustapha radiyallahu anhu euh, liggéey bi tege ci loxoom mag ñi nga xam ne ñoom la leen liggéey bi. ak ni mu loon ni mu séddale woon liggéey bii ko ñoroon lool muy liggéey jumaa ji ni mu ko séddale woon mag ñi nga xam ne ñoo ko waroon ba tax euh, liggéey bi euh, demee ni mu demee. Euh, booba de moom da ko tàmbale ci ñi bokkal si Mor Anta Sali yëpp ak ñi mu bokkal Cheikh Amadou Khadim yëpp yaatu woon na lool itam damay bañ nag di lim am ñoo xam ne duñ leen tudd ndax ñëpp jàmbare woon. fi ne boo gisee liste yim daa bind ak leetar yim daa sasi ñoom ñëpp seen tura ngi ci waaye dafa am nag ñu ci ràññiku ñoo xam ne dañoo yoroon ay sas ñoom ñooñu mooy lu mel ni Baay Faal yi xam ne ñoom da leen sasoon ñuy gasi doj yi ndokk di ko indi fii ci jullikaayu it bi di ko fi jal nga xam ne ku fàttaliku rek ñu bari fàttaliku nañ ko mu yebal Cheikh Abdou Abdourahman muy sama waajur mu yor suuf si xam ne mi ngi ko mi ngi ko daa gase fii bu jëkk ci aynu raxmati ñu bari fàttaliku nañ ko nga xam ne kàmb sax nekkatu suñ tubaa da caa def xar baax yoo xam ne kenn sëkku ci daa dafa mel ni moom maasalool boppam te maanaam li ëpp ci liggéey jumaa ji foofu la jóge fii nii ginnaaw bi lañ sanc fi ñu wax guy fukki sër ginnaaw bi ñu sanc fii ci ndaamaatu ginaaw bi ñu sanc kàmb yi nekk gaar bi di ko yanu ci ay pool di ko indi fii barabu suñ fàllu bi nekk di ko fa jal nga xam ni dañ ko nosoon ba nga xam ni ay camion yu jëli nit ñi ci bawal dikkee dañu faa def ay néeg suñ dikkee dañuy yenu ci pool yi ci suuf si di ko sotti foofu barabu suñ fàllu bi ne noor fa ba ñuy róoj ñu door a yeewee nag ñëpp dellu ba ba ba farmank waat ñëw bàyyi fa ñi nga xam ne mooy waa Daru Musti it si mu daw bàll ak waa waa kër maam Thierno ñoom lañ sasoon tojaat doj yi ba mu sew ñoom ñi ngi daa defoon kër fii ci kër suñ Tuubaa ne wuti penku foofu lañ daa toje doj yi waa gamaat bi nga xam ne suñ xew su jaxate ñoom ak ñu ñu nga xam ne mooy Baye Thierno Fall ak waa daaray jumaa ji ñoom ñoo daa yor béton bi nga xam ne ñooñu suñ bi da cee defoon kii boo xam ni doxalin woo xam ni dafa sasoon mbooleem ñooñu mu bokkal suñ Tuubaa cheikh yi kenn ku ne indi ci sa daaray tërbiye ñaar ñoo composé woon daaray jumaa ji mu boole ko ay nitam ñoo doonoon nga xam ne ñooy daanaka li ñuy wax mineebar ñoo ko doonoon nga xam ne ñooñu sax xar baax feeñ na ci ndax ñi soqi ko ñëpp ñi ci ëpp ay maçon yi gën a fort lañ fi ni ci senegal ñi doon ay ferrailleur ñi doon ay béniche nga xam ne ca jumaa ji rek lañ ko jàngee ñoom ba am ci am ci ak kawe ku defee nag mu door a defaat nag ay sas xam ne da koy tàmbalee ci ñu ñu ma la wax rek waa kër mo suñ Mor Anta Sali waa Darul Mooti ku mm-hmm. defee booba ñëpp a nga fa sax waaye suñ Mor Abib ku ci ràññiku woon la mm-hmm. boo demee kër Maam Mor Jaara it suñ Baara Xureje na fa lool mm-hmm. nga dem Salaam suñ Moodu Maawun maanaam mënuma ko lim suñ xaas waa kër suñ aafe nga xam ne boo seetee day daal di complété ñoom ñëpp fi ne ak suñ Moodu May nga xam ne moom fi nekkal suñ Masamba ak suñ Mahmoudan ak suñ Moodu Fatixari kenn mënu ko ci woon moom itam bu defee noonu lañ ko toppe woon sëñ Abdourahman sëñ Mor Mbàkke doj boobu moom dañ ko féetali mu yor doj yi sëñ Baara Xuréja ak sëñ Baara Jenn dégg nga sëñ Mat Jóob Masamb itam jàmbaar la ci lool ak Baye Sëriñ Saar su defee damay bañ lim muy am ñu ñoo xam ne duñ leen dégg waaye ñëpp ñëpp boobu rek yoon bi yëpp rek xam ne ñooñu ñuy lim waa Ndaam waa kër si Abdourahmane waa Gédé waa ñëpp ci jàppoon ci liggéey bi su ko defee kenn ku ne dana jot sa lettre ñi ñaari million ñi téeméeri junni ñi ñeen fukki junni ndax booba fukki junni rek fi ne ay millions yu jeex la fi ne <coughs> sëñ bi da cee defoon sart boo xam ni ak dëggu ak ragal yàlla ak fonk sëñ Tuubaa mënu koo weesu ndax booba fukki saako daana teye ñu liggéey te leneen dana fi ne waaye du ci def mukk loo xam ne jële jógewut ci tool yi wala ci ñu wóor a ñoo xam ne <coughs> xam ne loola ci li teewoon li taxoon mu xaw a yeex a àgg la fi ndax am na yeneen xaalis yu fi daay ñëw waaye du ko ci nangoo def am na xisa bu kii maa ne sax dama koy bañe kii rek waaye nga xam ne xaalis bu ñëw takku lool sinardo ne ne ne ko fukki saako de moo tee ñu liggéey tey mu ne du ci dem de hmm. waaw day nag ba ba lam bay ñëw rek wala li nga xam ne ñoo ñu nga xam ne da leen doyloo ñoom itam lañ koy yët lu wóor lay doon mu door ko cee def ni leen nag jumaa ji benn ndimbal bu jógee bitim réew di ci dugg loolu ñuy wax enfant eh, jamra kii mooy exonération la xawma du ci dugg kenn mësu cee leb benn dërëm itam nee na eh, mosuñ cee sàkku ndimbal te dana àgg coleet mu julli ko juróomi at door fay jóge njukkale ko sëñ Tuubaa waaw waaw booba booba moom ñu bari xam déggoon nañ ko hmm. waaye ginnaaw bi rek lañ xam ne loolu la ci jubloon <laughs> waaw na moo tax mu mu mu njukkal Sëñ Tuubaa kama kama xat kunta taamulu yaa xadima bi unni ata fii daari naim fukun fii nimatin abadan muqiman muaafan murtadan say xal xadim <laughs> ni ko ndokkeel naa la ci li nga xam ne moom rek nga bëggoon ndax booba da ko woone ko lii rek moom laa dese ci liggéey bu ma boroom borom sant te àggutoon boo demee nag bu la ci kenn man ku dikk na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi nee nag eh, nga xam ne eh, bi fadli kaax talaa jooju loolu la ci boo ko jublu Fallu Mbàkke ji da ciy génn fitne nga xam ne Sëñ Tuubaa waxoon na ko waaye kenn xamutoon ne loolu la ci jublu hmm. ak yu bare bari yoo xam ne lépp xar baax la waaye li ma waxoon rek mooy xar baax yi nettali doxiin bi nga xam ne dafa doon dafa nite eh, mooy wanaf si nooma savaha rek ñu ñu jéem ko jàngale ci noonu rek waaye baatin bi moom day day suñ xam-xam da ci dut àgg waaw. loolu sax mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy waral euh, beneen laaj bi ci des ndax euh, santaat nañ bu baax ci nii nga leeralee ni mu taxawoo woon jumaa ji ak ni mu ko séddalee woon kilifa yi. nga xam ne ni nga ko waxee kilifa yi kenn ku ne da laa joxoon aw sas waaye itam dëkk yi nga xam ne ñoo war Tuubaa itam dañ daan ay ayloo sëñ Mountakha Bane moom it kenn mënu ko ci woon ndax moom sëñ Abdou Mbar dañoo boole woon jumaa ji ba noppi nag yor tool yi xam ne maanaam fa saa bu suñ fàlluy róoj ñoo koy ñooy ñooy gor ñooy róoj ñooy déqi ñooy bàcc ñoom loolu lañ boole woon waaw loolu lépp rek dellu siwaat ci eh, yaatal ak sëñ Fallou nga xam ne doon na ko yaatal ak itam nag ñi nga xam ne itam ñoom naka jekk rek ni nii seen waay jur yee eh, àndoon ak sëriñ tubaa noonu la ñu àndoon ak Serigne Falilou moo tasaare lépp ci biir bokk yi ak taalibe yi ak seex yu mag yi nga xam ne ñoo waroon sëriñ bi ndax euh, kenn ku nekk njëmbatal sëriñ Tuubaa la jàppee te moom jàpp na ma ko war a suuxat mu ànd ak ñoom ci noonu kilifa yi bëgg yaatal ba kenn ku ne gis ci boppam mu ngi noonu euh, ni ni kilifa yi sasoo yore woon ay sas war jumaa ji noonu la dëkk yi daan ay ayloo di ñëw te loolu itam ñu ngi ko tàmbale woon ci nekk si Moustapha bi ñu fàllu ñëwee itam wéyal loola eh, nga xam ne la mu daan wax rek sama mag ju baax ji da ko yéeman lool wax ni nekk na fi ba dem jëfandikoowul baatinam xelam mu rafet rek la doon jëfandikoo loola réen lool ci siñ suñ fàllu waaye nag suñ bi nu bëgg nu xam eh, suñ fàllu boo xamee ne nii la yaatale woon eh, bokk yi kenn ku nekk gis sa gis bopp ci liggéey bi dafa am nag beneen liggéey boo xam ne mu ngi woon ci wet gi te mooy diggante suñ fàllu ak daara yi daara yi nan la suñ fàllu doon nekkee ak daara yi li ko tàmbale woon ci daaraay boppam ji ak daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir dëkk bi. noonu noonu mu ko yaatale ba ñëpp gis seen bopp rek nattub dëkk bi rek maanaam ci la ci la bokk ndax daanaka lu jiitu sant suñu Cheikh Fatma la la digal ne ko na lotissé dëkk bi ko defee sama mbedd mi ci sama buntu kër moom lañ njëkk dagg ci dëkk ndax da ko boo ko njëkkee xar ci sama kër keneen koo demati du du ci teg baat ko defee mu teg toog ba ci saw bu xasee taxaw rek moom fu korlu bi jëm fa la ñuy dagg sàkket yi ku defee bañ xare mbedd ma nag kenn jàmbatatut ku defee mu daal di tàmbalee ci ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa da da da leen a meññ wërale leen penc mi teg ci waa kër Sëñ Mor Anta Sali yooyu teg ci cheikh yi nga xam ni mooy Baay Faal yeeg waa Njeen yeeg ñi sant ñi nga xam ne dañoo jege Sëñ Tuubaa lool ndax Sëñ Tuubaa daf ne woon moom dafa am doomi deret ak doomi roox mm-hmm. te doomi roox yi daanaka da ko gën a ñor ba ñëpp jaayaat seenum jureel jënd seen jënd ko taalibe waaw ku defee nag loola mu mu teg ci ñoo ñëpp ba nga xam ne kenn ku ne bu dikkee da nga am wàccukaay Tuubaa goo xam ni dañuy defee ne yow rek yaa moom Tuubaa fi mm-hmm. defee daara yi noonu ma la ko waxee woon rek buñ ci defee royteef daanaka da kenn mën naa bañ a te yelwaan ndax nun ku ne xam na ne suñ daara ji nga xam ne Fallou Diop da ko yoroon moom laa lay nettali ne booba sarax si la ko tudde woon waaye bis bu set day joxe junni junni bi juróom benn téeméer yi ci lañuy ñuy jëndum xar togg ci ñaari dugal booli bi ñu indi ci daara ji bii ñu indi ci kër sëriñ bi xam ne mbooleem gan ñiy wàcc ak dong yëpp ci la ñuy xeewlu ba daara joojee jógee nag am na jeneen daara ju ju nu yóbbu yoo xam ne dafa def acte de solidarité wax ne léegi day def beneen modd boo xam ne ñenn ñu ne fañ jógee mboolem kër ga kër ga nga jógee nañ tibb ab super anti ba ñëpp andee rek biñ ko sottee maanaam dañ koy tibbaatiwaat ñëpp añ bu suur xam nga loolu ab mode la boo xam ne bu ko ñëpp royoon maanaam yelwaan mën naa far ci réew mi fii waaw ko defee mboolem daara joo xam ne suñ tubaa ko sampoon wala mu teg fa ka fa nekkoon it mu dundalaat ko dundal daaray tërbiye yëpp tam dundali daaray xam-xam ji tàmbalee ci bii ci biir jumaa ji nga xam ni eh, bi bi bi mu koy dégle eh, booba noonu sax xëy naa ci ñi gën a ndawe waaye def ne siñ Tuubaa ko digaloon moom hmm. ne léegi bu jumaa ji àggee nañ ko fa defal te lu fa waay sàkku da ko am hmm. nga xam ni am na sax ñoo xam ne dañoo bëggoon a dem jàngi ci jamono yooyu mu ne leen téye ngeen a toog ndax maag sama mag ji Cheikh Mamadou Moustapha day mu mu ne sunoo wan rëdduwoon xamut te lépp fii leen ko xamee bu defee bu ngeen ko sàkkoo fii itam dangeen ngeen ko ne xamee incha allah hmm. waaw daara joojee eh, dem na ba eh, waa kër Sëñ Fàllilu yi ubbi nañ daara fii ci kër gi mooy mbaar mii nga xam ni moom la Sëñ Xalil defoon fi ne ña ngi fay jàngale fànni xam-xam yëpp nga xam ne daanaka lu ma téeméeri nit a nga fay jàng fi ne kenn du fay dara hmm. te loolu lépp bëgg a dundal la mu nekke woon ak lam daa santaane képp tax fi bëgg itam nit ñi am xam-xam ndax fi ne loola daa wax bu musaa dajalee gone yi ba ñëpp teew kenn ku ne dalay tariloo laaj la fa nga yem boo boo jàngee tuuti mu làkk la arab su ko defee ne la waaw góor dangay ngay da ngay nangoo jàng te nekk ci li nga nangoo te li nga war a nekk rek ku nekk ci li nga war a nekk rek loo bëgg da ko am xam nga loola maanaam labiré la goo xam ne dafa dafa dafa war a daj jamono ji xam ne ne loolu gàtt na waaye ñëpp la ci jublu mooy kenn ku ne nanga nekk ci jub te nekk ci li nga war a ne nee na ku ne ci li nga war a ne rek loo bëgg da nga ko am salaamaaleykum jërëjëf sëriñ bi fa tabaarakallaahu yokkaat nga ma aw fit man dama doon jéem ne Sëriñ Fallu rawante loo na ndaw ñi ba tax na ku nekk nee na siiw kooku farle ku mës a bind kaamil ba indi mu jox la dund ak soxna nga boole noonu mu nekk woon nga xam da daan da daan sawarloo gone yi ci ci jàng. ndax boobu daf ma a tariloo waxtu wu ne. ne ma boobu mokkalee rek ma yóbbu la màkk yàlla dogal bi ma koy jox sama kamil boobu daanaka sorewut ak fan yi mu demee. waaye def ne ma la la def nga li nga waxoon waaye may li ma waxoon danaa ko def naa la yóbbu màkk xam ne toog naa ba jëmmi jamono mu feeñu ma dem naa màkk fukki yoon. waaw ah, xam ne loolu kon def na la mboxoon moom itam. jërëjëf ji kon xam naa ne rek moom jataa bi kii na waaye nag itam fa tabaarakallaahu moom suñu fàllu def ci doyal bëgg nañu rek nga tënkal nu eh, lenn ci ay jikkoom yoo xam ne bu la doon laaj tey jën moo la gën a marqué ci Serigne Falilou jën jikko ngay tudd ak jikko jooju itam nan lañ ko mën a royee. mooy suufeel boppam mooy woyaf ak tabe ak bëgg suñ Touba ak fonk taalibe lool. waaw ak fonk mbokk ak fonk doomu aadama ci boppam ndax doomu aadama xamewut kii jullit lëbal la kii nangam lëbal leneen ku dikk rek loo sàkku ci moom am ko xam dafa jafe ci jamono ji fi dafa yaatalal moom dafa njëkk jàpp doomu aadama gi ba noppi jàpp jullit gi ba noppi doore jàpp ki bokk ci suñ tubaa dimbale ñëpp xam ne ndimbalul jaam ñi la la woon moom léegi ñu bari daa ko nax ci ñu la ñi jàpp ku dikk naa ko dama def nii nàngam nangam waaye jàngale na loo xam ni koo xam ne daa dikk ne ko ndi mbàkkee kër ga dara dafaa nekkut nee na mu am lu yëkkati dara jox ko kooko defe na ne fàtte na ko ba talaata ji del si mu dikkaat mu yëkkatiwaat jox ko ba muy ñeenti talaata mu ne ko waaye kër kër yi kër yi nag ñeenti talaata ngoog <laughs> kër këree ko yor waaye kër ga dara dewu fa yoru ko kon loola dafay soññ nit ñi ci nangoo nangoo liggéey waaw fàggulu lew te loolu dafa bokk ci li Sëñ Tuubaa sosé yoonu murit Sëñ Tuubaa dafa sosé yoonu murit muy nañuy xamlu xamlu na xam sa digg sa borom xam sa bopp xam àddina mooy xam yëpp ak sa moroom yi jaam yi ba noppee nga tegginu nee na bi ci des mooy nga nangoo jaamu yàlla nangoo sax ci def lu baax ak laabire ñëpp tegginu mooy sax ci taalibe nee na ahmaalu saalihaat yëpp it mooy jëf lu baax bi ci des mooy fàggu lu lew bañ kenn te ku tooñ nga baal ko xam ne loolu mooy fondation yoonu murit xam ne bu ci yëpp nekkoon tey ay gendarmerie ak police yu yëpp daam waaw ko defee nañu yéeneente lu baax tey dimbalante wa taawanoo alal birri wa taqwa wala taawanoo alal ismi wal udwan ndax moom bépp kàddu bu mu yëkkati wala jéego bu mu jéggi rek boo ko seetee danga ko gis ci alxuraan xam ne alxuraan la doon doxe mooy xuraan mm, yem si àll arab mm, waaw. man dama dama wax bëgg démb rek ci kër sëñ Afe Bousso ne Serigne Falilou doon na def lu yàlla digle di ko defe ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee di ca góorgóorlu ni ko Serigne Touba soññee yooyu daje na ci moom. Euh, sa maam ju baax ji nag si Moustapha dafa waxoon ne fu lu baax ne ku baax a ko fa def. sarti sëriñ jajo ba jooy tënkam ba jàng ak julleeg bay joxe ngir yonen <laughs> di di yewu njël di sangu njël di jàng jël di julli njël di joxe njël ci seeni soxna yee ñu jël <laughs> waaw moom la ci loolu la nekkoon rek ndax moom ñi ko ñi ko séq daanaka daa génnul fenn suñ fi moom xam ne ku ca rax rek mooy suñ bàkki bu soog maam Thierno maam Mor Diarra su ko defee ñoom képp ko rax ci suñ tubaa waaw ba mu nekkee gànnaar yi dafaa nekkoon ak i naar waaye moom suñ Tuubaa rek lañ lañ xooloon moo leen xamal liñ xam lépp moo leen tàggat ci taalibe itam ndax ñoom ñoo ñooy ñoo ñoo njëkk ñoom lañ njëkk jàngal ak taalibe ñoom. waaw ñoom ñoom si sëñ Modou Moussa à part rek ak maam Thierno moom sëñ Fallou ak sëñ Modou moom la sëñ Tuubaa ndëkk tàggal ci ab di mel nub taali di mel bu defee moom kuy roy rek mën ngaa yem ci moom ndax daanaka ñoom ñoom la sëñ Tuubaa bëggoon ñëpp di leen royaat waaw ba def la muy def ci ñoom lépp li ma doon junj léegi mooy sa maam Cheikh Moustapha Mbacké radiyallahu anhu dafa wax ne fu lu baax nekk ku baax ko fa def waaye bu fa saxee dafa bàyyi kuy defar mu bëgg na xam kon Cheikh Modou Fadal gannaaw boo xam ne nekkal na fi Serigne Touba ni mu fi nekkal Serigne Touba nga xam ne dama ko tënk ci yaari mbir liggéeyal na lislaam jariñal na yàlla bindee fi gannaawam nag euh, taawam yu baax yi si euh, ni nga xam ne euh, noonu mën a fàttali ci sëñ Moustapha Falilou bi mu wutoo Serigne Fallou. waaye ñoom itam sëñ Fallou leen tarbiya moo leen jàngal ndax sëñ Moustapha Falilou ko xam. ñoom ñëpp moo Cheikh Mamadou Amine hmm. ñoom suñ fallu da leen tërbiye tërbiyaal boppam nga xam ne Madina ak fu ne àgg nañ ci di ko liggéeyal di ko kondiral di mboolem lu ñuy defal lu taalib taalib bi di def waa daara ja rek moom jaar nañ ci jàngal na leen ñu mokkal alxuraan jàng xam-xam ba ne xar ci noonu mu waxe woon ba noppi nag tërbiye leen tërbiye goo xam ni ñoom bëggu bëgguñ leen lu dul suñ fallu jéemu ñoo xam leneen itam bu defee ca lañ yem rek te xam ne ginnaaw suñ Fallu mooy suñ Tuubaa buñ ci yemee rek doy na sëkk moom ñoom ñu ngi ci biir suñ Tuubaa ko defee dikk yooyu ma wax yëpp daanaka dañ ko caa roy ba koo ci jaxasool rek da ngay defee ne moom mooy lépp suñ Fallu ba ci doomam yu baax yi rek suñu Ahmadu mii ne ci néeg bi rek ñoom ñëpp ñi nga xam ne sax daanaka bi mu fiy jógee boobu ci saayir at yi bëriwut waaye jeexital na ci ñoom ba nga xam ni ku ci jaxasool day mel ni moom demi jëmmi Sëriñ Fallu rek ngay jaxasool loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax moo bu buñ meloon neneen itam mooy li ñuy wax dañ ñuy jaaxal waaye <laughs> kon nag ñu ngi leen di ñaanal ñu sut ko fan bu baax a baax rek te kenn bañ leen a ëppale ci Sëriñ Tuubaa <coughs> waaw. yàlla boole la ci ñaan géew itam tabaarakallah ñu ñëpp nu bokk ko waaye dañoo dañoo gis rek yu bari yoo xam ne si Moustapha Falilou daana la ko sant te loolu itam yaa yaa dama foog ne am na sabab xanaa sa diggante si Moustapha Falilou waaw ñoom di xam nga suñuy waajur moom suñ fàlloo leen boole woon bi ci desit mooy mm, saa bu ñëwee fekk ma ci suñ fàllu rek ñoom xam nga dañoo bëgg suñ fàllu ba mboolem lu ci laal rek dañ lay fonkaal loolu rek la woon ne man sama awma solo ba noppiti eh, gënuma kenn daqu daquma kenn lenn waaye xam naa yooyu rek ci ci li taxoon ñu di ma jàpp ka am fuñ may teg rek la woon fonk suñ fàllu rek waaw loolu looloo ko waraloon li rek mbokk yi ñu ngi ànd ak sëñ eh, Abdou Baaxe Dia istikhama point com di santaat bu baax ci teewaay bi di sant mbokk yi nga xam ne teew nañ fi Cheikh Abdou Lahad moom sëriñ bi ak sëriñ Cheikh Abdou. kon nga tënkal nu jataay bi rek ci léegi nun waxtaan wi nuy waxtaanee sëriñ Falilou ak mag ñu baax ñi lan lañ ci war a jëlee. sikratan fa'al mu'minin nee na nee na fàttaliku dañ cee war a jariñoo. fa sakkir in nafaati sikra te te màggal yëpp boo gisee ñu di ko wax mooy niñ ko daa waxee di wax waaye bu fekkante ne wax day booy nopp kon alxuraan sàpp ñëpp wala xisasul anbiya yi wala lu mel ni si yi moo tax dañ koy takraaraat di wax di waxaat rek ndax ñaan màggal liñ ci jublu mooy fàttaliku ak sant ak ñaan su defee nag nee nañ fàttaliku day jariñ doomu aadama sant itam ku sant ñu dolli la ñaan itam day jariñ ñi fa nekkut jariñ la yow miy ñaan dox la ay yool ku defee nag ñu di ko sant ni suñ tubaa santaane rek mooy ci sunna lépp lu sunna woote rek ñu di ko fonke màggal xaawaltu sukurallaahi bi tilaawa wa bi ma alxalaawa dane maa ngi jublu sant yàlla gi ci jàng alxuraan ak jàng sama xasida yi ak bernde ku defee loolu mooy ak màggal te suñ feelu moom képp kuy santale yàlla ci loolu da ko caa moom ndax moom loolu la ko ñëpp xam mooy yaatal ak bernde ba màggal gi gis nga fi àgg fii nii lool rek ko fa àggale fii nii ñu gën cee góorgóorlu rek gën koo fonkaat baax gën koo jàppaat nam jàppe woon suñ tubaa rek te ñaan suñ borom fay ko la kawe njortam bàyyi fii njabootam yi itam ñu yàgg koo màggalal ñi nga xam ne dañuy ñëw ki jéego jéego ñu fay leen ko lépp luñ fi sàkku itam ñu am ko barke Cheikh Mamadou Fall